رمضان رمضان رمضان يا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ci AG PROD TV dellusiwaat nañu ak yéen ci seen barnaamiju kayfa taj'alu siyaamaka barnaamij bi nga xam ni day am bis bu nekk ci shahru ramadan al mubarak ki leen koy defal di seen mbokk seen xarit Oustaz Youssouf Sall conseil pédagogique à Lyon sunu waxtaanu tey mooy al fadlul birr wal ihsaan fi ramadan fadlul birr wal ihsaan fi ramadan ngëneel yi nekk ci def lu baax def lu rafet ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni bi ci njëkk mooy as sadaqa mooy saraxe is qaala sallallahu alayhi wa sallam afdalu sadaqa sadaqa ci ramadaan nee sarax baax na lool ci weer wu nekk baax na lool ci jamono bu nekk baax na loolu fu nekk mais fi mu gën a baaxee nag fi mu ëppee tuyaaba mooy ci ramadan afdalu sadax sarax bi gën ci sarax yi mooy sarax bi nga saraxe ci weeru koor moo tax mu waxaat ba tey nii man fatara saaiman fa lahu ajruhu min gayri an yanqusa min ajri saaim shay'un nee na képp koo xamante ni kii jox na ndogu aji woor yàlla da koy bindal tuyaaba ju toll ne ji mu bindal aji ji te du wàññi ñoom ñaar ci seen tuyaaba dara loolu scientifique yi mën nañ koo déglu ñi nga xamante ni bii am nañu xam-xam bu baax ci internet am nañu xam-xam bu baax ci computer su fekkee damaa tàppe lii may wax ci sama ordinateur mboolem ñi nga xamante ni bii ñoo ngi seetaan AG Pro TV ma am seen adresse email mën naa leen koo envoyé te du wàññi dara ci li nga xam ni moo nekk ak man borom bi subhanahu wa nee na jamono boo joxee ndaw aji yàlla dina la bindal tuyaaba ju toll ne moom tuyaaba ji mu am te du wàññi ci seen tuyaaba dara su ñëwee ci adab raama yi an abi hurayrata radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida jaa ramadan futixat abwaabul janna ida jaa ramadan futixat abwaabul janna wa ughliqat abwaabu naar wa dufida fi wa shayatin abi hurayrata na ko yàlla gërëm nee na yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni su jamono di ñuy wax ramadaan yegsee ida ramadaan ramadaan su yegsee ramadaan su ñëwee rek dañuy ubbi bunti àjjana yépp bunti àjjana yépp la ubbi fermé tëj bunti safara yépp ba pare jéng mooy manatu jéng seytaane ubbi bunti àjjana yépp moo tax ci beneen xadis bokk na ci mujj bu rafet ku génn àdduna ci weeru koor soo génnee ci àdduna ci weeru koor ñu tëj bunti safara yi kon fooy dem xanaa àjjana yal na yàlla yóbbu àjjana ñun ñépp yóbbu fa sunuy wayjur allahuma atiq riqaabana min annaar waa atiq riqaaba abaina min annaar allahuma atiq riqaaba azwaajina wa awlaadina min annaar mbokk yi suñu ñëwee ci nasaayix tibbiyee yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni suumu tasifo woor leen su ngeen wooree rek wér gis nga xadis boobu borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu médecine biñ ko exploité jëlee nañ ci lu bari ni am na ay feebar yu bari yu muy faj xoolal mu ni inna kullu insaanin yaxtaaju ila siyaam nee na nit ku nekk dafa soxla di woor at mu jot mu woor benn benn weer wa in lam yakun maridan su fekkee nag feebaroo wax ñu nga feebar nga ni damay woor far force déedéet soo feebaree waroo woor mais soo feebarul dañoo bëgg nga woor at mi at mi fukki weer yi ak ñaar nga woor benn weer au minimum mooy farata nee na li anna sumumul aghziya wal adwiya tajmaa fil jism ndax mboolem li nga xam ni tooke la poson la lu bon la ci li ngay lekk ak comprimé yi nga xam ni moom ngay naan yooyu dafay dajaloo ci sa yaram bi day dajaloo ci sa yaram bi fa tajaluhu kal loolu daf lay def nga mel ne ku feebar dajaloo googu muy dajaloo ci sa yaram yi day tax nga mel ne ku feebar xoolal wa tasquluhu wa tuxallil nachaatu loolu su xasee dajaloo ci sa yaram daf lay tayelloo daf lay tayelloo dafay diisal sa yaram bi ba pare tayelloo la fa ida saama xafafa waznuhu nee na soo wooree nag ah xafafa waznuhu sa poids dafay wàññeeku su ko defee mboolem tooke yooyu nekkoon ci sa yaram léppay deñ lépp dafay deñ mbokk yi ñu bañ a fàtte nag suñu cër ci miraas mi la tansa nasibaka min al miraas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bariwaan na lu daan ñaan surtout ci weeru koor suñu yaay Aïcha mosoon na koo laaj laylatul xadar su jotee lan la ñaan te dinañ ci ñëw mu ne da ngeen di ñaan allahuma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni bokk ñuy seetaan ak di ñu déglu ci AG PRO ñu ngi leen di tàggu foofu di leen jox rendez-vous suba ci waxtu bi di ñaan borom bi subhaanahu wa mu sàmm ñu xontuñu saxal suñuy cër ci jaamu yàlla bu ñu fi jógee su ëllëgee ñun ak suñuy wayjur ak suñuy soxna ak suñuy njaboot yàlla tàbbal ñu àjjanay firdaws aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi